asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen ñi seetaan chaîne bi di Tawfekh TV Tivaouane ginnaaw bu ñu leen ziyaare jaajëfal leen naqar ak tiis moom moo am tey fii ci réew mi accident bu metti bu doy waar foofu la ca ndànd booy dem ci Louga ci yoonu Louga bi accident bu metti benn minibus ak benn camion ñoo daal di euh, def accident. Eh, ba lu tollu ci fukk ak ben ñoo ci ñàkkagul seen bakkan yal na fa yam waye am nañ ci juroom ñenti doomu adam 9 personnes yo xamni évacuer nañ leen ci hôpital régional bu Louga ñu ñaan yalla yalla yalla defal leen tawfiq yalla yëkëti leen di ñaan suñu borom subhanahu wa taala yalla wañi musiba yek eh, accident yi ndax bari na lool ay ati ati at ñoo ngi koy jema safara waye ba léegi amaguñ ci safara di ñaan yalla yalla yalla safara ko mi ngi non accident bu metti bo xamni amna nga ca ndànd ca yoonu Louga ba onze personnes ñoo ci ñàkk seen bakkan waaye lu toll ci neuf personnes di juróom-ñeenti doomu aadama ñoom la ñu évacué ca hôpital régional bu Louga di ñaan yàlla yàlla defal leen tawféex di wax ngeen continuer abonné ci chaîne bi di Tawfekh TV Tivaouane jërë ngeen jëf